bu ñu defaree napp gi ñun lañ ko defaral ñu ko sénégalais yi sax parce que sénégalais yi ñun ñooy nappi ñoom ñooy lekk jën wi waaye ñun ñii la ñu defaral loolu loolu nag la ñuy ñaan le président de la république napp gi lu mu gën a gaaw urgence la. am na bateau yu fi nekkoon amuñu autorisation amuñu licence de pêche doon pêche sunu géej beneen bi tamit beneen sew-sew bi ci ne mooy direction de direction de la surveillance bateau bu nekk ci géej gi ñu ngi xam li nga fi def ci géej gi. ñu am ci taxawaay ba bato bu fi deful lu mu war a def ñu jàpp ko indi ko gëm nañ ni géej sans bato amul mais nag war nañ régler bato yi ñu fi bokkul jóge fi ku ñu jox licence ñu xool ko parce que Sénégal dëkku napp la bala ngay joxe sa alalu réew day fekk sa doomi réew ñu ko mën a liggéeyee doyal ba pare. li gën a am solo daal pavillon Sénégal nañu ko auditer bu ñu ko auditer ba pare tamit ñun nappkat yi dinañ ñëw ci ñun dañuy d'accord ñu ñëw toog ak ñun. ñu def conseil présidentiel de la pêche li nga xam ne ay jafe-jafe la ci napp gi ñu nangu ñu defaral ñu parce que dañoo toll ci jamono yi defar. géej gi bu yàqoo ñun la yàqul yàqulul kenn parce que ñun ñoo ci investir ñun ñoo koy dunde liste bi dafa rafet xam nga lu tax mu rafet. gis nañ ci 46 navires yoo xam ne ñun amoon lu ñu ci xamoon ne 146 navires moo ci ne am na 9 navires yu ci dollee ko dañu bëgg a xam 9 yooyu lu ko ci dolli nañ ko auditer parce qu dañu xamul ci diggante bi lañ ko ci dolli wala fan lañ jaar ba dolli ko ci. parce que 51 la te 46 la woon kon yaakaar naa sept xaw ma huit navires yoo xam ne am na yu ci yooyu dañ ko lijjanti